yow mi ñu tudd Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga yow mi tudde Moustapha yaa jëf jommal surafa daane nga mbëri soog a dem sa tur wi wenn rawu ko sa waajurit kenn gënu ko sa askanit kenn gënu ko sa jikko nag kenn du ko am. dañuy jox euh, inspecteur sëñ Abdou Lahad Lo mu ñëwal ñu moom ci tomb bu mujj. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din euh, ginnaaw bu ma nuyoo kilifa yi teew yëpp ak mbokk yi ziyaara leen di jëfal ñi nga xam ne ñoo ma jiitu ci kàddu gi muy sëñ Issa Gueye ak sëñ naa ngir bañ a guddal comme ni ngeen ko xamee rek euh, mbooloo muy dund ay principe comme ni ko sëñ Issa waxe sànq di dox ngir jëmmal ay xalaatam dox am fulla ngir réaliser ay objectif am faw mu jàmmaarloog ay pakk-pakk yu samp ci kanamam di ko sóoru wala mooy ñu tuddee ay défi euh, défi yooyu mën naa jóge ci biir mën naa jóge ci bitti yaakaar naa yu jóge ci biir sëñ feex na matal na ci sëkk liñ ci war a wax dayob mbooloo nag ak gëddaam ñu ngi koy nattee ci taxawaay bi muy am ci jàmmaarloo ak xeex ak eh, défi yooyu ba duñ nagamal ay tànkam duñ paralise ab doxam kon ginnaaw sëriñ seexu naa xàll na yoon wi waxtaan ci défi yi nekk ci biir man liñ ma sant mooy ma tàbbi ci defi yi nga xam ne ci bitti la jóge muy yu bari yu naqaree tënk waaye dinaa ci jukki yenn rek lu war a mat ñeent waaye balaa booba ma xam ne ne def yi nekk ci biir ak yi bitti yi nekk ci bitti xëy na bëggoon a organiser waxtaan wi rek moo tax ñu tërale ko noonu waaye day jaxasoo léeg-léeg duggante ba daanaka du neex a ràññee waaye lu ci mën a am dinaa jéem a tënk yenn ci def yi nga xam ne jàpp naa ne ci bitti la def yi bi may njëkk jaar mooy li ñu tuddee al awlama al awlama mooy mondialisation rawatina al awlama saqaafi muy mondialisation culturelle xam ngeen ne xam-xam ak aada ak cosaan ak xalaat yi doxal àddina àddina bi di ci dox dafa xëttaloo tey ba dañ daan wax naan village planétaire mooy xarya kawniya waaye léegi ndax du sax ab néeg néeg ab néeg la mbir mi xëttaloo na ba àgg ci daanaka li xew ci benn néeg ñi fa dëkk war koo xam foog naa ne foofu la mbir mi toll euh, loolu nag xam ngeen ne li ko fi gën a indi mooy jumtuwaay yu bees yu xarale yi nga xam ne ñoo xëttalee diggante euh, frontières yi ba ab digg amatul ci xam-xam ak xalaat ak aada cosaan loolu am jeexit yu rëy rëy jum def ci dundiinu askan yi xam ngeen ne euh, mondialisation bi mu dikkee ba nit ñi gàttandu ko taataan ko salfaañe ne lu bare bare ci seeni pas-pas xajamal seeni jikko ak seeni aada ak seeni cosaan ba ci sax ni ñuy dunde seen diine xam ngeen ne am na ci loo xam ne mondialisation laal na ko mu mel ne euh, jumtuwaay yu xarale yi li ñuy def ci ay dégâts moom donte am na njariñ li ñuy def ci ay dégâts bëccëgu ndara kaamu lañ koy def ñëpp xam nañ ko muy internet ak ay mbokkam li ñuy def moom moom nëbbutootul léegi yaakaar naa ne jarul taxaw waaye mondialisation am na beneen côté boo xam ne dañ koy solal mbub mu rafet di ko tuddee tur yu rafet di ko présenté présentation boo xam ne day tax nit ñi gën koo bëgg da ngeen dégg ñuy tudd baat yu baree bari yu mel ne xuququl euh, euh, insaan ay droit de l'homme liberté démocratie droit de la femme Euh, droit de l'enfant yooyu yëpp ay jumtuwaay la yoo xam ne ci jumtuwaayu mondialisation la dañ cey jaarale lañ koy jaarale ci ay mbir yoo xam ne vraiment communauté buy dund bu nekk euh, sa wàll dana ce ñëw ñu demee dem ba mooy euh, ci sa diine walla sàmm sa ndono ak sa aada ak cosaan ku koy def yaa ngi mel ni ku ngëpp ciw xal mbooloo yu bari sàmm seen ndono ak seen cosaan day mujj metti ci ñoom ba dañuy toqi ba sànni sax seen ndono ak seen cosaan su ko defee laqtuwaat ci ginnaaw mondialisation ak li mu andi loolu lépp nekk jeexit ci jeexit ci mondialisation ñu koy tuddee aliénation culturelle mooy al istilaabu thaqaafi waaye kuréel bu am taxawaay nag am fulaak fayda waaye am badit am alternative boo joxe war nga def loo man ak loo mënul ngir ngoy ci sa cosaan ak ci sa identité ba li mondialisation andi ci ak yombal ci jàllale message nga fexe ba jariñoo ko loolu nag jàpp nañ ne benn kuréel gënu cee yeey kuréelu at-tariqa al-muridiyya ndax xam ngeen ne ndoonal sëriñ bi lim bàyyi ni ko murid soxlaa Sénégal soxlaa ko Afrique soxlaa ko àddina bi noonu lañ ko soxlaa buñ ko xamee niñ ko war a xamee ndax moom weesuwul lislaam ju cosaanu ja ya nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon mooy lislaam ju pratique juñ mën a jëfandikoo te xam ngeen ne jamono ji mondialisation dikkee dafa amaale yeneen crise yoo xam ne dafa ànd ak moom ci waa ci àddina nga xam ne ñoom ñëpp tey soxla nañ beneen gisin wala diine joo xam ne wala gisinu diine joo xam ne dana leen génn ci seen eh, crise yooyu kon mel na ne mondialisation tey occasion la ci mouridisme ngir ñu tasaare seen ndono eh, jot li seen woote comme ni ko sëñ Cheikh na Mbàkke doon wax léegi ci anam gu gën a yaatu ci loolu foofu sax la moo ma taxoon ma naan ñaari thèmes yi day dugalante bu baax baax ndax jottali njàngaleem sëriñ bi ci biti ci biti eh, défilé boo xam ne mën naa nekk ci biir waaye am na wàll boo xam ne ci biti la laal ci loolu lu baree bari la ñu seetlu ci murid ci wàll wàllu seen seen loolu xam ngeen ne ndono li nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko fi bàyyi ñu bind ko ci làng arab naar yi nga xam ne arab mooy seen làkk sax nañ ca war a jote jotuñu ko ci waxuma la nag tubaab yi nga xam ne xamuñu luy arab xamuñu luy luñ def ci noonu kon foofu ab defi bu rëy rëy la boo xam ne sëñ Cheikh na am na lu ci juñ ñi nga xam ne ñooy jot li woote sëriñ bi ci bitiit eh, mel na ne seen liggéey lu am solo la dañuy góorgóorlu di def ay résultats waaye seen liggéey mel na ne amut planification amul lu ko lal fii ci dëkk bi nga xam ne dañ leen di planifier seeni activité def leen daanaka ay missionnaire maanaam nit ki day dem Italie wala mu dem Amérique rek amoon xam-xamam fi am pëste fam am yéeneem jot li dara ci njàngaleem sëriñ bi daal koy def waaye nekkul ne tariqa bi ci boppam ñoo toog nos yoon yónni ay nit ci bitti def leen ay missionnaire ñu jot li woote sëriñ bi te loolu yaakaar naa ne waloon naa mën a mën a mën a yomb euh, am na sax ñeneen yoo xam ne dañuy jóge ci bitti dégg monétisme mu ñëw di ko gëstu si ci dëkk bi toujours ngeen gis fi ay tubaab yu jëkki di gàttandu si li nga xam ne moom la ñuy dégg te agsiwul ca ñoom waaye buñ dikkee mel na ne lu leen gàttandu jox leen lu fees bët loola it ñaaree duñ ko fi fekk ndax amul ay centre de recherche yoo xam ne mi ngi fi ay marakis baxs ay documents yoo xam ne sax dañ koo liggéey mu mel na mu war a mel muy xam lee yoon wi eh, ci langue yi nga xam ne ñooñu di ñëw moom lañ maîtriser ñu jox leen ko lool dafay manqué lool li fi am ci ay gëstoo ku kus néew ci arab lañ ko bind te loola xam nga ne lu néew a néew la ci par rapport li ñu war a def ci wàll woowu ci tënk ci wàll woowu jàpp nañ ne al awlama muy mondialisation mën naa gàllankoor waaye occasion la mën naa indi opportunité pour ñu tasaare wooteeb sëriñ bi te loolu la cay jiitu buñ ko bëggoon mooy delloo gëdd xam-xam ak yar ak tàggat kenn na ko sëriñ bi daan defe ndax moom dund na daf ko daan dund yare ci bind ci taalif ci bàyyi ci ay ay nit ñoo xam ne lam waroon a def ci ñoom def na ko ci ñoom ñu tasaare ko ci biir ci biir réew loolu nag rek lañ war a seet nan lañ koy war a méngale ak jamono te lu mel ne fii ci dëkk bi waroon naa am tey ay institut de recherche ay maahidul buhur ak ay kuréel yoo xam ne tarjama ndonal sëriñ bi fexe ba mu nekk ci làkk yi nga xam ne moom la àddina bi soxla ñu def ko ci waroon naa amit ay daara yoo xam ne dañ fay tàggat ñi nga xam ne dañ leen di yebal ci biti ñuy jot li woote sëriñ bi war na am ay imprimerie yoo xam ne dañuy mool ak di tasaare eh, xasiide sëriñ bi ak buxus yi nga xam ne moom la ñuy def ci tariqul muridiya yooyu yëpp war naa mën a nekk ci kii loolu nag yaakaar naa li ci mat a dala xel mooy lu mel ne professeur Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne mooy daare Cheikh de jee muy naal jàpp nañ ne bu àggee lu baree bari ci lii nuy jàmbat eh, buntu la ngir saafara loolu kon benn la ci défi mooy défi de la mondialisation mooy tahaddil awlama alsaqafiya beneen défi bi nga xam ne bëggoon naa ko laal mooy alsiraa bayna ruhaniya wal maddiya maanaam bëre bi am diggante diine ak jamono maanaam diggante spiritualité ak temporalité loolu bari na ay mboolooy diine ci taarixul islam ñoo xam ne ci biir bëre boobu fa lañ feeyee fa la booloo tase ba ba amatuñ jeexit ci taarix daanaka loolu nag buñ ko dee posé fii ci kaw minbar bi ñu ngi posé diggante maanaam muridiya ay finalité am ay raayatam ak ay wasailam parce que ku ne xam ne ne aljanibu ruuxaani li sëñ Isaa doon wax sànq ci ahdaaful muridiya lépp day dugg ci biir aljanibu ruuxaani loolu mooy mooy jubluwaay bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg aljaanibul maddi awil hadaaf yi lépp ay jumtuwaay rek la te loola fa ko sëriñ bi xaajal naa daal incha allah xëy ma jeex ah da ngay mor xanaa am ah kon dama doon wax ci as-siraa bayna ruhaniya wal maddiya ak li mën a andi ci ay jeexit yoo xam ne mën naa gàllankoor woote sëriñ bi rawatina bi ñu war a jot li ñun murid dama doon xamle ne bu ñuy posé diggante ruhani ak maddiye ñu ngi posé diggante finalité mouridisme ak ay moyens te moyens yi ci ko sëriñ bi yamale woon weesuwul mooy al mubaax al saalih al la lañ ca sañee jëfandikoo mooy lu dagan lu baax tey yéwénal loola nag buñ ko weesoo rek gàllankoor mën naa dikk te loolu mel na ni mi ngi nuyoo li nga xam ne ay jafe-jafe la yu bawoo ci euh, ci yittewoo yittewoo bëggu àddina daal mbëggum àddina mi daal lim indi ci loo xam ne day yàq woote sëñ bi bari na lool te moo ne jumtuwaay yi nga xam ne moom la jamono indi yépp mëneesoon na ko jëfandikoo ci loo xam ne day suuxat aljaanibu ruhaani comme niñ ko euh, tuddee sànq loolu nag al mubaax al saalih al muslih mboolem système yi nga xam ne mënees na koo jariñoo système politique système économique système social lépp lu ca am njariñ mouridisme mën na koo jariñoo ngir dëgërale ko woote bi ndax loolu mooy indi benn ci ahdaaf yi nga xam ne eh, rot na ci eh, exposé bu njëkk bi te mooy saadatu daare <coughs> kon kon damay dënk rek beneen bi beneen défi bi dama koy tuddee défi al amn wa salaam xëy na ma loolu mooy li nekk ci kaw mooy dañoo wax ne mouridisme ak défi contemporain yi àddina tey li fi gën a jafe mooy jàmm ak salaam loolu lu fi jafe la waaye mën naa ko wëlbati tudde ko idaaratul ixtilaaf maa al tawaif wal jamaat al oxra défilé bu rëy rëy bu taxaw ci kanam du murid rek mbooleem kuréelu diine yi eh, ni ñuy gérer seen différence ak yeneen kuréel yi problème yaakaar naa ne loolu ku ko wax ci Sénégal ak fii nu toll ci ay débat diggante intellectuel kuréel yi da nga xam ne vraiment lu ama am solo la ñu jéem a saytuwaat nan la ñuy xoole nan lañuy ñuy gérer différence bi ñuy am ci diggante kuréel yi diine yi ndax lu néew néew rek day dig mel ne daal xalu ndeef la daal diggante yi day mel ni aw xalu ndeef la wuy gëmm rek ngelaw lu ndaw rek day dikk daal di upp xalu xal wi tàngaat taal bi tàkkaat ci diggante kuréel diine yi defi dëgg dëgg dëgg nag mooy ñu wuute ñun ci suñu biir te du duñu bañante ñu wuute suñu xel yi wuute te suñu xol yi du wuute loolu defi bu rëy rëy rëy la boo xam ne jafe naa ndax ñi ñi xambu taal bi ci biir kër gi ñoo ëpp ñi nga xam ne dañuy fay daay loolu mooy problème bi waaye kon ñu jàppe ne njàmbaar gi dëgg-dëgg du xuloo bi du xiroo bi du ŋaayoo bi mooy fexe ba wuute bi mu tegu ci xel rekk te bañ a àgg ci xol yi ñu géré ko noonu xam ngeen ne sànnente xeer bi am ci diggante kuréel yi bés bu set da ngay mujj sax danga nga ciy tayeel tamante bi am ci diggante kuréel yi kiimaan la loolu nag tax na sax noonu lislaam yi di jàllale ay yenn concept lu mel ne al irhabul islami fi mu doon tey dem nañ ba boo nee baat bi tuddee sax jihad dañ leen jihadisme nga xam ne mbooleem sax wootekat yi sax léegi dañuy xaw a moytu di laal baat yooyu ndax rek eh, loolu lépp li ko jurit mooy eh, mooy ñagas-ñagas bi nekk ci diggante kuréel yi diine yi bu ñu réglé woon seen problème ci seen biir ba am wahdatu saf yaakaar naa ne te noonu leen yi dañ leen bàyyi xel ba du ñu jéem a dugg ci seen bi mu mel ne jafe-jafe yooyu nag buñ ko gàttanduwul mën naa appi loxo léegi lan mooy saafara ci wàllu woowu dañ si xamna xam ne ñu waaye woor ma ñu fexe ba kuréel bi nga xam ne mooy muridis ñu fexe ba ji woor ma kilifay jàmbur yi bañ leen di gaaruwaale li ñu tuddee afalu tafdil booy jëflanteeg sa nawle di beneen kuréel nga fexe ba afalu tafdil nga koy moytandiku le superlatif ñu koy moytandiku ndax benn kuréel bu nangu loolu am kuréel boo gis moroomu kuréelam ab nawle la ko def kon ñu fexe ba ji loolu ci fexe daal bay xeetale am na lu sëñ Cheikh Tidiane si daan wax xeetale xam-xam yi te bañ leen a xeexale ñu fexe ba kuréel yi ñu leen di xeetale te bañ leen a xeexale fexe ba liñ le ci ay xiyam ñu cay tarkiis te bàyyi ixtilaafaat yi bokk na ci liy saafara loolu fexe ba <coughs> eh, suñu programme scolaire ñu dugal ci njàngale siiratu zuama diin ndax léeg-léeg ñàkk jàng xam keneen ki mooy andi eh, yu bare bari ci ci ci waaw bokk na ci it bu dee ci li mondialisation andi te ñu fàtte woon ko maanaam euh, kilifay diine yi ak niñ leen di këll-këllee ci biir réseaux sociaux yi jàpp naa ne loolu war na cee jël ay matuwaay yu wér a wér bi war na cee jël ay matuwaay bi nga xam ne code pénal dafa am article article quatre-vingt waroon naa am daal loo xam ne danañ ko jagaleel kilifa yi ngir ñu bañ a taal euh, loolu nag damaa bëgg a wax ne warugaru yoon wii nu bokk la ñoom ñu def lépp ngir loolu am loolu mooy bokk na ci saafara su ko defee nag li ci des moom yaakaar naa sëñ Cheikh na jaaroon na ci fexe ba euh, jàngale benn discours bu équilibré bu ñu tibbee ci njàngaleen sëriñ bi ak ay taxawaayam ci jullit yi ni mu leen jaboote woon ñoom ñëpp def leen ay mbokk jami al muslimin nga xam ne ña nekk Chine ak ña nekk Amérique ak ñëpp la boole woon buy ñaan ñoom lay ñaanal yaakaar naa ne fexe ba bina benn xitaab benn discours équilibré ci waar woowu di ko jàllale dina waaye dina woyofal lu bëree bëri ci ci ci ci waar yooyu début bi may mujje te yaakaar naa moo waroon a njëkk nag mooy lii lenn rek la ci ay défi yoo xam ne mooy moo mooy dëkku ab tariqal muridi ci biti waaye défi bi gën a rëy mooy murid yi jàppe na loolu ay défi la mu maanaam fi doon ni jot li wooteeb sëriñ bi ci bitteeg ak euh, nan la ñuy mbir yi ak yooyu am na ñoo xam ne jàppewuñ na loolu maanaam waru gar la woo xam ne war nañ cee sonn te jàpp nañ ne loolu mooy liggéey te fexewoon donc ba conscientiser murid yëpp ba ñu xam lan mooy ak mouridisme comme ni ko sëñ Issa jàngale ñu xam ne mouridisme du rek Touba du rek Sénégal du rek Afrique mouridisme risala alamiya la mi ngi istimdaari alamiyam ci alamiyatu islam ginnaaw mouridisme mooy l'islam l'islam àddina bépp ko tax jóg kon war nañoo fexe ba murid yëpp jàpp ne mbir mi du mbirum Touba rek du mbirum Sénégal rek mbirum àddina bépp la foofu nag ngeen xoole al fajwa kàmb gu yaatu gi nekk diggante li waroon a nekk ak li nekk fexla seet leen ko bu baax baax am na ñoo xam ne xajoo kilifa yi diine yi ci biir réew mi rek problème na ci ñoom fa maa ko nag boo bëggoon a génne nag di bàyyi xel ñeneen ci yeneen kuréel yi kon loolu war nañ cee liggéey liggéey bu rëy rëy rëy ci wàllu yépp nag ci tolluwaay yépp comme ni ko sëñ ci wax naa waxee tàmbalee ko ca kaw ba ci suuf su ko defee ñi nga xam ne ay taalibe la ñoom tamit ñu bàyyi xel loolu bu baax baax xam ne daal yëg ab problème mooy jéego bi jëkk ngir nga faj problème boo yëgul jàngoro yi doo faj mukk foofu laay tënkee di bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf ci tënku bi ci waxtu wi waaye ci waxtaan bu am solo bi mu ngi doon waxtaanee li nga xam ne mooy dëkk murit bi te nekk ci biti muy ay taxadiyaat yoo xam ne ay taxadiyaat xaariji la euh, moom it daanaka yoon wi mu ko jaar rek sore wut ak wi ko sëriñ Cheikh naa jaaroon ndax sëriñ si naa laytaayoon na waxtaan wi mu soog a ñëw bu ñuy tënk li sëriñ Abdoulaye wax lépp rek mooy murit gi bu ñuy xool dëkk yi ko yi nga xam ne moo koy dëkk te nekk ci biti bi ci gën a mag te nga xam ne daanaka moo ëmb yëpp mooy li ñuy wax mondialisation nga xam ne àdduna bu gëndaloo bi léegi ba mel ne benn dëkk nga xam ne tënk sa njaboot sax yombatut ci boo leen yeewut boo leen jàngalut boo leen yarut loolu nee na mi ngi dëkk murit gi te nag mondialisation boobu am na yum indaale yoo xam ne ay dëkk la ci murit gi ay défi la waaye nag warees na koo mën a soppi bam mu nekk ay matériel yu ñu jël eh, jariñoo ko rawatina lu mel ne tasukaayu xibaar yi ak internet beeg yu jëm ci yooyu eh, beneen bi ci toppit mooy diggante ruuxaaniya ak maddiya maanaam daal poñetum àdduna poñetum àdduna mi ni nga xamee ne sama classe bi yëpp dañoo topp loolu léegi ba xaw a doyadal wala ginnaawal li nga xam ne mooy dëgg-dëgg mbir mi te moom la sëriñ bi doon woote te mooy dëgg-dëgg tasawuf beneen bi ci toppit bi bu am solo te mooy lu jëm ci wàllu jàmm maanaam ki nga xam ne du ab murit nan lañu wala jëflante ak moom muy mbir moo xam ne ni mu ko waxee lu am solo la mooy doonul ne murit gi dong ñoo ñoo am yooyu jafe-jafe dëkk boobu kuréel yépp dañ cee am jafe-jafe waaye murid yi war nañ cee dox ba ñépp xam ne rek maanaam xilaaf ak ixtilaaf bokkut ixtilaaf mën naa am ci suñu diggante waaye xilaaf moom la ñuy bañ euh, loolu lu am solo la bi mu mujjee it te nee na mooy bi gën a rëy ci def yépp mooy ak euh, la shuur wala la wax yi maanaam ñàkk a ñàkk am conscience ci mbir mi Euh, gravité bi nga xam ne am na ko fi mu toll nii nee na loolu it mbir la moo xam ne euh, mu yii ñu doon wax yépp ne day dëkk murit gi ak li koy saafara murit yu bari dañoo yëgut ne loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne dañ ko war a jéggi loolu jafe la mu wax ne rek ne war nañoo bàyyi xel ci ne wooteeb sëriñ bi lu universel la maanaam dafa ab ak universalité goo xam ne saa sone rek dafa war a nekk ci bopp murit yi ñu xam ne universalité googu it am nañ ko ci wàllu espace am nañ ko ci wàllu temps maanaam bi sëriñ bi doon woote ci njaareem ba léegi jag na ngir ñi nekk France jag na ngir ñi nekk Amérique jag na ngir ñu nekk Italie ci buñ leen ko wanee li ñu ko war a wane waaye am na universalité ci wàllu temps yi te mooy jamono ji së jamono ji Sëriñ Tuubaa doon dund njàngale moom mu doon jàngale it ba jamono jii valable na bu suñ jamono ji ci bu ñu ko wanee rek ni niñ ko war a wanee kon Sëriñ Abdou Lahad ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu yu am solo yu tënk yi